di nuyu ak a ziyaara njabootu Serigne Touba gi nekk ci jataay bi njabootu lislaam gi fi nekk yépp di dogal ngant di jël nuyoo yi di ko jaare ci njabootu Serigne Touba gi fi nekk jël ab nuyoo teg ko ci loxo Serigne Bachirou Mbacké moom Serigne Khadim Awa Ba moom Cheikh Mamadou Lamine waaye Serigne Waysu Mbacké moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Massamba bu nu jëlee nuyoo yooyu sell yooyu teg ko ci seen loxo dana mën a jàll ci seen bokk yu baax yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi yépp di jox ñépp seen wàccuwaay bi nga xam ne moom la leen sunu borom jox di nuyu it sunu sëriñ bu baax bi sëriñ Bachiru Mbakke moom Cheikh Mahamadul Maxtaar moom it di ko jaajëfal bu baax nuyu kilifaam yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi di nuyu sëriñ Mahamadan Fall bu baax moom it ñoo koy nuyu nuyu sëñ Ablaay ñoom it di leen jaajëfal baax sëñ jàmba sama soppe boobu ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp sëñ Modou Galas mi doon jàng xasaayid yi léegi moom it di sunu mag di sunu xarit sëñ ma ndag gàkku bëgg sëriñ Saaliwu mi toog ak sunu wala réew yi sëñ As Guèye ni sant yàlla ci jataay bi nag di feeñal rek sunu yéene sëriñ maam Cheikh Mbacké noo ngi lay nuyu bu baax maa ngi koy seereel sëriñ Bachirou léegi moom sëriñ Khadim Ba ci sa taxawaay waaye sa bàyyee xel it liggéey bi yal yàlla fay la euh, guddi gi day guddi gu mag goo xam ne ki ci feeñ mooy ki nga xam ne moom la sunu boroom tànn mu gënal ko ci mbindeef yépp jox ko it yi gën yépp te ci dara darajaam la sunu boroom sakke jaam ñi yépp mu nekk ku sel koo xam ne sunu borom daf ko tànn tànnal ko askan wu sell wu mu bokk def ko it muy kii mujj ci yonent yi waaye jagleel ko ci boppam loo xam ne sa xaqiida sa pas-pas sa ngëm sa imaan du dëgër mukk feek waxuloo laa ilaha illallah muhammad rasulullah bu fekkee ne wax nga laa ilaha illallah rek te teguloo ca muhammadu rasulullah du tax sa pas-pas wér kon pas-pas bu wér bi mooy nga wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah muy koo xam ne nag sunu boroom da koo waajal xam ngeen ne ak leeram ci la leer yépp bàyyi ko jant bi li muy leer leer ci biir leeram la bàyyikoo ak weer wi ak biddiw yi ba demee ci almasrabu shaafi li matxil kaafi sëñ Tuubaa nga ko ci wax min nuurihi kulla nuurin saatian bi sana nuuru nujum wa nuuru shamsi wal qamar kon jant bi ak weer wi ak biddiw wi seenug leer mi ngi génn ci leerug boroom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bi ko sunu boroom wàcceegul it sayduna aadama mi nga xam ne mooy maami mbindeef yi sunu boroom bi muy digal malaayika yi ñu sujjóot ci moom mooy bi ci leerug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekkee te booba mi ngi nekk ci diggante ban mu nekk lu ñu tën mu wax malaayika yi ne bind naa bindaa fon mu bees na ngeen ko sujootal ka lankoon gàntal di iblis laanatullah alayhi la ko xañoon yool ak lu mu mës a jëf ci lu baax ñàkk a sujoot ci leerug yonent bi sallallahu alayhi wa ko waral nga xam ne ci dara jaam la yàlla sujjóotloo malaaka yi ndax leeruk rasulullahi salaahu salaam gi nekk ci moom leeram googu nga xam ne nag dafa tasaaroo ci àdduna bi yépp ginnaaw ci maamam jooju mu jëkkee la sun boroom digal ay malaayika ñu sujootal ko ba ka gàntal bañ a sujoot gis nga ni ko alquran andee la mu ko leeral fa nekk ak mu ak bu jëttalam ba suñu borom ne inni xalaqtu xalqan jadidan fasjuduhu fa sajada al malayka illa iblisa aba wastakbara wa kaana min al kafirin waaye la ko suñ borom xaare nag mooy bi mu nee suñ boroom nag ma fi bàyyi giñ naa ci sa tedd nga danaa beewal gaañi yàlla dafa giñ na ko giñ naa ci dëgg te maay dëgg danaa feesal sawara ci sa kaw ak képp ko la topp kon loolu fa xaq wal xaq aqul la am la anna jahannama minka wa man tamiaka minhum ajmain danaa feesal sawara ci sa kaw ak képp ku la topp lu tax ak féttarle moo tax ku ko topp jëm ca safaan ba kon de xanaa des na war a nangu ne ku jëf lu baax ba am ngërëmul yàlla ku la topp mën a dem àjjana ginnaaw ki lànk ngërëm ndigalul yàlla yàlla xaar ko ci ku ko topp jëm ca safaan ba kon wa des naa nangu it nag ginaaw ku def lu bon ku la topp ca loola am leneen ka ne ci lu baax it ku ko topp ca lu baax nag am lu baax defe naa mat nay bàyyi xel kon bu baax a baax yonente boobu nag sallallahu alayhi wa suñu borom waajal ko euh, wàccaay woo xam ne tax na ba guddi gii bi mu ci wàccee lu ne xew na ci muy guddi gu mat a màggal gu mat a fàttaliku màggal goo xam ne it mooy teg ko ci alquran teg ko ci am daax yi nga xam dañ koy tagg yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi salaatu salaam moo gën a yayoo ci aw tagg moo gën a yayoo ci ak maggal lu tax mooy ki nga xam ne moo tax suñu borom sàkk lépp nga xam ne Sëriñ Tuubaa ma ngi wax ci xasida gi ma la wax léegi da almashar bu shafi nee na ci yërmande jim doon moo tax sax yàlla di wàcce taw ci kaw suuf yonente boobu nag sallallahu alayhi wa sallam guddi gii la ko suñu borom waajal keroog bi leeram gi bàyyi ko Seydina Adam wàcc ci Hawa ñëw ci Chicha ba ni ñëwee ci Ibrahim ñëw ci Ismaïl ba ñëw ci Abdul Talib ñëw ci Abdullahi ba ñëw ci soxna Amina leer googu feeñ di Moustapha sallallahu alayhi nga xam ne guddi gi lu ne xew na ci jëmmi Kaaba gi nga xam ne Kaaba al musharrafa moo jëkk yëngu jayaalu ñetti yoon ngir xam ne am na gan goor a wàcc ci guddi gi sunu borom jox ndigal malaayika yi jibril jiitu ñu notiwaaye asamaan si fomp biddiw yi fompaat weer wi lu waroon a wex cim ndox guddi gi rasuulaay di feeñ lépp a saf sukkar ak dég du jam nit lu daan jame am tooke day nooy muus bu gisee janax du ko jàpp nga xam ne guddi googu yonent bi di feeñ lu war a ñor doo xaay mango bu waree ñor day ñor leneen bu waree ñor day ñor lépp melo wam war a mel ci wa ca gën ci guddi gii bi rasuulaay di ñëw lépp dafa mat nga xam ne bahaahim yi sax dañuy waxante ci seen bopp di informé ne te jii am na ko war a wàcc ko war a feeñ muy xayru xalqullah guddi gii ci la iblis demee ci loj ya gën a kawe ca makka taxaw fa di yuuxu ca kaw di wax ne man de yàqu naa ndax am na lu war a ñëw ku war a feeñ koo xam ne li muy indi mooy lislaam mooy ki nga xam ne ku ko topp mucc te moo nuy jural ak échec lañ doon naal ca jaam ñi bëgg ko ci am kii di ñëw moo ko yàq yonente boobu nag sallallahu alayhi sunu borom waajal ko mu wàcc ci guddi gàmm li ñuy tuddee rabian al awal di weer woo xam ne Serigne Touba da koy tuddee bahjatu shuhur sëñ bi nee na taaru weer yi mooy weeru gàmm daan na nag jëmmi weeru koor moom weeru at eh, atq wal itlaaq la weeru goreel la ak boyal waaye jëmmi weeru gàmm moom mooy bahjatu shuhur ndax li tax ki ci ñëw di yonent bi sallallahu alayhi kooku ci ñëw nag bi mu daataan bi la ko sëñ bi di jàngal dan daf la wax ne muhammadun xayru man xaabu wa man xadaru wa xayru atin wa taati minhu al busharu ñetti jamono moo am muy passé ak présent ak futur sëñ Tuubaa nee na ku wëy ku fi mas a jaar ba wëy muhammadu rasulullahi la gën ku jamonoonteeg moom ne fi moo la gën ginnaawam kuy ñëwit moo la gën muhammadun xayru man yamshi ala qadamin muhammadun xayru man lillahi qad sajada sëñ Tuubaa nee na kuy teg seen dëggul tànk ci kaw suuf di dox rek rasulullahi la gën mu ne giñ naa ci yàlla billaahi lam yaati walay sa yaati mislun ka sayidi saadaati sëñ Tuubaa nee na giñ naa ci yàlla mës la ñëw te duutu ñëw mukk ku mel ne sangub sang yi di rasulullahi sallallahu alayhi wa guddeem gii nag mooy guddik far bakkaar laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riya mooy guddi goo xam day far sikk laylatu max wi taxabi day far coona waaye wa tuxri si day dindi ay bakkaar guddi gi dindi na ashakku ar reynu yii ci xolu doomu aadama bi guddi gi da koy dindi bi rasulullahi di ñëw waaye dindi na coona waaye mooy guddi laab mu ne guddi googu mooy guddi goo xam ne an najaa al falaa al suru al rabaax yooyu yëpp la daje guddi mucc guddi bénéfice yu tanewu guddik tuufu guddik texe guddik mbég mooy guddik rasulullahi sallallahu alayhi wasallam gii mu feeñ nga xam ne loolu ma la li ci li iblis doon wax di daw di yuuxu bi sëñ bi ñëwee daa wax ni mu wàcc turida fiha bi nujum anis samawati rajim wa farra xaasiran yulim bi xisbihi sa wakami nga xam ne biddiw yi ñooy pete di ko sànni ay jum yu mel ni ay kënu muy daw di yuuxu ànd ak kuréeleem ya di yuuxu ca kaw ngir ko war a feeñ di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam guram guddi gu màgg gii nga xam ne moom la yàlla tànn yónni ko ci mbindeef yépp kaafatan li naas la ko yónni waaye rahmatan lil alamin yonent bi salaahu salaam moomu mooy kii yàlla yaral boppam mu gën a mat ñépp jikko doy na ci bu ñu demoon ci jësbul xulub benn bayit a ngi ci boo xam ne mënees na cee gàmmo ay guddi guddi ak huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wala mis bu xat lan yura walan yura fi cheemi sëñ Tuubaa nee na ki gën a mat bind mooy rasulullah luñ bind loolu rafet rafet yonent yàlla yusufa dañ ko daan yéem ci ab taar te rasulullah ko daq mu ne nag ni bind bi mel ci gën a rafet noonu la jikko ji mel nga xam ne xalqan wa xulqan jikko ji dafa rafet bind bi rafet sëñ Tuubaa nee na ku mel ni moom kenn mësu koo gis ku mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mooy koo xam ne moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla mësta feeñal lam yabdu mislul Moustapha Muhammad sirran wa jahran fil baraya samad muhammadun misaaluhu lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati sëñ Tuubaa nee na yàlla mësta feeñal ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni yonent bi alayhi salatu salaam it duutu feeñ Sëriñ Tuubaa na kooku mooy kan mooy ki nga xam ne ataaka laysin fartawaa manixtada wajaaka lay ka xay ka laysin fantada manixtada nee dafa ñëw mel ni ab taw buy sottiku képp ku mar naan ba mandi waaye may gaynde ku tépperlu moo lay alak rasulullah mun la koy misaal ci ñàkk morom gi boo demoon ci xasidaam gi tudd raiya nga xam ne raiya muy xal bi lahu fi ataabi jismi takraar ak taiya muy hamad suleyman bi sarfi almasiyat ak miimiya alqalbu minni fi salima muy xas salima ak nuuniya muy xataaba xal bi ya lama laaw sallama ni xasaa yi di tuubaa la tuubaa la ko sëñ bi bindee waaye ci biir xasida gii di raiya sëñ bi dalay portaleel yonent bi ci melaw boo xam ne boo koy dégg dalay wax danaan la lil badri nuurun azimun yustanaaru bi weeru fukki fanag ak ñeent bu fekkee ñépp xoola leer gi ñu ne weer wi de leer na lool leer gi de neex na lool mu ne waaye lakin ida lam yakun li shamsi izhaaru waaye bala laa yéem leeraayu jantub leeraayu weer wi lum la yéemee nee na négal ba xam waaye bu jant ñëwee rek weer tàbbi ci pax mu ne kon lu waay baax baax bu ñuy tudd sax baax di ko kañ ba rasulullahi ñëw ni weer di giime tab jant di ko giimal noonu la mel mu ne boo duggee ci àll bi lil xas bi tuulun la daa la daa lil xas bi tuulun la daa la daa nazarat lakkinaha isa lam tanbut xawlahu asjaaru bu fekkoon ne danga ñëw ci ab àll di ko xool seen garab yi waaye boo séenee ak ron ni mu sute garab yi gën a jub noonu la mel mu ne boo demee cib teen ndox ma fees dool boo tabbee sa baag amum ndox waaye na nga xam ne lu la ndoxum teen yéem yéem ay toq la ci géej yakunu lil biiri maa un taaba mashrabuhu lakinnahu min xaliijil bahri aqtaab lu ci nekk sëñ Tuubaa di la ko misaalal benn par benn mu ne la atallu xad yabdu amaamal wabli fal fadlu lil waabili laa li talli mësëy buy sëpp-sëppi di toq am ndox la sëñ Tuubaa nee na waaye nag mësëy yëmul ak waame mu ne wala tujaari nada bi maa am amtaar te kenn ta gis ab lay buy baawaan ni ab taw kon lu mu mën a doon da cay tànn yonent bi di la won ne lu ñëw moo ca gën a màgg mu yemu ca mu dem ba yàgg mu ne raamal wara nay la fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi garaaru gaa yu baax yëpp daw fu jëm ñu ne dañuy sàkku ji ngëneel ngëneel bàyyi ba ñu baax ñeeg ñëpp daw wuti ko ngëneel baleen fa ñëw ci rasulullahi sax kon ngëneel wal fadlu inda rasulillahi garaaru mu ne gaa yu baax yi kenn tuutul am nañ daraja waaye seen daraja lu ñuy rëy rëy lakki na ma ahmadul muxtaarul muxtaaru kooku la Sëriñ Tuubaa di tagg ci melo wu ne mu ne huwa lasi faaqa siwa min al baraya bi huda ata badakat bu suma fi arsikal maadim xasida gum jël di ko tagg di la ko misaal di la wax kum doon ak dayo bi mu am ak wàccuwaay bi ko suñu borom jagleel bu la koy wax wax la moom it fan la nekk ci moom di la wax ne sëriñ Tuubaa nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sama lex bii ci ron ndëggul dàllam laa ko roof xaddi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytani lahidani bi fadlihi moo tax bu ma gisee kuy wax ne murid yi dañuy jël yoon sëñ teg ko ci kaw yonent bi gis nga mbir bala nga koy contexte da nga koy gëstu ginnaaw sëñ Tuubaa moom xamoo ci lu may am gànna mesere muy wax képp gëstu woo mbindam demoo dëkkam jàngooy téeréem xamoo ñim defar waroo caa wax te jigéen kenn du ko atte ci borom këram ndax da koo bëgg danga koy gëstu ba xam kii li mu wax sëñ Tuubaa moo ne sama lex bi mi ngi ci ron ndëggu daldi rasul la daan bu ma àndoon ak yonent bi ñuy dox ba yàgg ma séen ak dégg na caw ñaw rasul lay bëgg caa teg ndëggul tànk li baa ma séen jaan dindi ab balooram bëgg a fett tànk bu rasul lay wala jiit sëñ Tuubaa nee na du wuti wet di ko rey damay bàyyi ba jaan ja génne baloor ba wala ba dégg taxaw wala ba a taxaw ma jël sama lex bi dëpp ci lay joggi ci ba ca des xaddil wiqaayatu rijlil mujtaba min shawkatin wa maa yubaaha aqraba loolu la bind de xaddil wiqaayatu li rijlil mujtaba min shawkatin wa maa yubaaha aqraba sama bi lex laay laltaay ca kaw dégg wala ca kow jaan ja wala ca kaw jiit daal na rasulullahi nag bu demoon ba deretam war a tuuru ñu ne mënta ñàkk a tuuru sëñ Tuubaa nee na sama deretay tuuru joxe naa sama joj bu waree wop maa koy woppal dammi fidaun li xuruji dammihi wa maradi fidaun li daai jasadihi yemu ca mu ne ngoor naa sama lépp sëñ Tuubaa léppam da ko jox rasulullahi juttulahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fi l alal jumlatu maali wal midaadi wal qalam haddiyatun lil mustafa baabi naam sama lépp dama ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam desalu ma dara man Serigne Touba yemu ca mu ne bëgg naa ko bëgg koo xam ne li waral ne ci xolub nit muy bëgg wurus wala muy bëgg xaalis wala muy bëgg doom wala muy bëgg soxna loola set na ci sama xol man Ahmadou Bamba sama xol boo ko jeexee kenn nga cay fekk muy rasulullah bi man bi xubbihi nasiitu layla wa bahaban wa fiddatan wa xayala ba mu nekkee ci géej ga it te ak njabootam tawat nga xam ne booba egg na ci di wax ne justu balaa al ankabut ahasiba naas an yutruku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatana alladina min qablihum fa fa la yalamanna allahu alladina sadaqu wa la yalamanna alkadibin moo ne loola ba muy am njabootam gépp dafa tawat Cheikh Mahamadul Moustapha tawat Sëriñ Fadilu tawat Cheikh Mahamadul Amin Baara tawat kun ne ko ci njaboot gi tawat na dane kooka bu dee sëñ Modou Moustapha mu ne mi ngi ci loxob yàlla sëñ Fallu mi ngi ci loxob sëñ Mourou Sow mi ngi ci loxob yonent bi sëñ Fallu mi ngi ci loxob yàlla Mouhamadou Lamine mi ngi ci loxob alquran loola lu ko waraloon mooy daa yegg ci ne mahat mahabatiyal muxtaar sayidina habbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada bëgg rasulullaay ne nañ ci sama xol ba yëgatuma bànnee xob doom ak li doom di neex neex yëgatuma alal yëgatumam koom yëgatuma dara sama deret sama njaboot lépp jotug rasulullahi la ku rasulullahi ameel bor boo dajee sama doom jàppal yóbbu boo dajee sama taalibe bi yóbbul yóbbul sama jëmm bu laajee deret tëral daana yonente boobu nag man Serigne Touba am daxuhu bi nazmi wa nizaam maa dumtu xaadiran ala alkalaami feeg maa ngi mën a wax dama koy wasaral di ko way lu ko waral li xubbihi li annahu awla biya min nafsi allati yada biha dama koy way ndax dama koo bëgg moom a gën a sama bakkan man Serigne Touba rasulaay ma sa gën a sama bakkan ndax nag way yi ma koy way nag boo demee ci ne ca di lim lim am waaye dama koy tudd ngir xër ci moom daal na mbindeef yëpp lott nañ ci tagg rasulullahi ndax borom moo ko njëkk tagg ci alquranul karim na nag tagg yonent bi de mi ngi mel ni lakkin mën a dëxër an am daa shuara wan yal asaabi an li masli sama sëñ Touba nee na taxaw ci suuf di yuqamti ko ba laal sa baaraam nee na li muy jafe-jafe tagg rasulullah ko gën a jafe jël dundam gépp jëme ko ci moom lahum tidaahi baxda najaahi inda sabaahi wa fi lmasaai salaatu sitta bi matsi sitta taatihi batta maa tishaai waxtoom yépp mu jóor ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amul genn bëgg bëgg yonente bee tax mu genn ay këram boo demee ci asiirul lu ma xusuur yi wal ahlu an ni tafaaraxat li maddehi lladi anhun madihu xasiiru sama kër yëpp a gent 1895 ku ne xam na ne joxe woon nañ ordre bu kenn dëkk Touba mu ne sama kër yee gent na tàggoog sama njaboot li ma ko yóbbee li madhi lladi anhul diw xasiiru tagg rasuulaay rek ma ko yóbbee te lu ma ko tagg mu gàtt moo tax mu gent li këram kooku nag moo nu jàngal lan mooy gàmmo moo nu wax dayo bi gàmmam danoo digal ñun nu gàmmo fonk ko di ko jëf faman yuhasim mawlida nabiyina babul huda fala yuhasubu gada fahtari man waazimi fahtari man waazimi na nga ko warmaal na ko màggal nun ndigal la ñu am fahtari man waazimi ginnaaw rasulullah ak guddeem màggal ko mooy bidaa na ñëpp bay ngénte bàyyi woote cant bàyyi woote lu baax bay yépp ndax ki tax yépp am bu yoyoowul màggal kan lañ war a màggal kan lañ war a màggal gis nga bu naan nangam bidaa al badiu mooy yàlla dan ne kullu bidaatin dalaala waaye man sanna sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama benn addis doo ko mokkal rek jàpp ne moom ngay làng-làngee ci réew mi loola neex daj yonent bi fi bàyyi ko moo ne balligu an nii walaw aaya jottali leen ma message sul islam xuroo buri da ginnaaw rasulullahi sidna abou bacrine moo ko woote ndax yonent bi fekkee ndax moo ko ko digaloon waaye dana ko dañ ko bàyyi lislaam ñenn ñi gàntal ba ñu joxe zakat mu ne duma ko fi bàyyi taxawal ko tey jii lislaam alxuraan jii nga tiim tomb yeeg maas yeeg dajale ginnaaw rasulullahi la te ci ngay taxaw di takk fiir di sànni nit ñi nangam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lislaam bi tey buñ màggalul alayhi salaatu wasalaam léegi bu ne woon weeru koor am na guddi gu tudd laylatul xadr nga gëm ne laylatul xadr am na te laylatul xadr yi li tax mu am ci weeru koor la wàcc yàllaa ko joxub yonentam tudd ko ci alquran bu yonente bi ñëwutoon kon ndax laylatul xadr dana am nungu nga kawsara moo ko jox kawsara nungu nga nangam moo ko jox nangam te ab jaam dafay nungoo sant xéewal gi yàlla jaarale ci ab jaam li gën a rëy mooy loolu yonent bi sallallahu alayhi moo gën a yayoo ak màggal moo gën a yayal yayoo warmaal bu fekkee ne nag jàng alxuraan jàng xasiida bernde jokk ak bokk dundal ko loola mooy bidan ana baax kon de i'malu fa sa yara laa amalakum wa rasulu al muminun ana fu ñuy jëmati ci jëf ju baax ak man amila saalihan nangam al ahmalu saalihat du fi jóg te jëf ko day war di am waxtu wu nekk rasulullah yelloo kañ guddi gu ne la war a doon guddi gu ne gàmm la war a doon ñu di ko màggale Moustapha boo demee ci muxaddamatul am daax sëñ bu la koy jàngal di la wax yonent bi nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidin xalilun xabibun mislahu laysa yu'lan mooy ki yàlla solo mooy ki yàlla son yónni mooy gën gi jaam mooy sang bi mooy ku tedd ki nga xam ne ku mel ni moom kenn mësu ko annoncé sëñ Tuubaa ne kooku ne guddeem mawliduhu muazzamun mubaarakun muhtaramun taasimuhu yanxatimu ala sawi taqadumi xanaa sam xel moom néewul ci natt sa alliwo ak sa xam-xam jëmee ko ci sëñ beeg na xanaa xalatu ko moom ndax loo gàntal gàntal xam ne diine ko sëñ Tuubaa moom doone moom moomoon tool bii ngir de bay doone woon moom moom jeexitu ëllëg bi amuloo ni magasin du sol mbubu ma mi poos mu sa ci alal kenn doone saa maama ko daan sàmmal léppam yàlla xanaa kon moom bu ñëwee ne rasulullaay lii looy wax yow moom nag moo ne mawliduhu mu mubaarakun muhtaramun ginnaaw lu màgg la lu barkeel la lu ñu warmal la tanzimu yanxatimu ala sawi taqadum dem na ba yàgg mu ne li mu ne li mawlidil muxtaari sirrun yuktam wa sawnu ala alwara yanxatimu bañ na ko ba egg na ci ne guddig rasulullaay làmboo na mbóot yooyu lu ñuy nëbbu la kenn xamu guddig màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi buñ koy màggal nuñ koy màggale mooy niinu nu def di nettali ay siiraam ay jaar-jaaram di ko waxtaane di waxtaane ay meloom di waxtaane tedd ngaam di waxtaane jëfam julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom a ko jëkk def inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ñu xam nga jëmmi lislaam dafa bari ay yëf lislaam faw nga am xaayit gidd dalil hët bu xam lu leer di la ko jàngal nga di ca tegtaloo sinon rek nga fétal yi nuroo te bokkul dañoo bari yu nuroo te bokkuñu dañoo bari weex-weex la rek weex-weex la siwob salatex boole ko bopp soow suukar ba xam du weex-weex la naanal boobu c'est la texte rek da nga xam ba xam weex-weex la am kon nuroo couleur wuute na ak caf ka wuute na ak xet wuute na nangam ak nangam ak nangam waaye ki nga xam ne boo ko tuddee mu matal ñépp mooy muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dàq mu ñépp sëñ na doj wii ngay gis di ko toj wala nga di ko bërëng li doj wi naan tekk yënguwut lu doj wi lewet lewet rasulullah ko gën a lewet lahu min al xelmi maa lam yahwihi jabalun laaxal ada fi l baraya wa huwa sabbaaru sëñ Tuubaa nee na aw doj ko daq muñ lim dajeeg ci noon waaye muñ rek yàlla jox ko yu kenn amul bokk yi ina aataynaaka al kawsara ku ko moom rasulullah moom la yàlla jagleel mbooleem anbiya yeeg mursaluun yi boo leen boolee cent vingt-quatre mille lañ kenn ku ci nekk la la yàlla ilham wala la la yàlla waxyu wala la mu yable ci yow rasulullahi rek la invité subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi barak na xawla jóge baytillahi al xaraam ñëw baytil maqdis ci Jérusalem yéegi sidratul muntaha suma danaa fa tadalla fa kaana gaaba xawsayni aw adnaa fa awaa ilaa abdihi ma awxaa rasulullahi rek a am loolu moo tax sëñ Tuubaa ne ko la anta imaamu rusuli xad jaa annahum talaaqaw fi l asrari wal kullu xad labista siyaab al majdi wal fadli wal ula wa fiika min al ma ajaza al kulla yow yaa njiitu yonent yi ca guddi gi yéege googee daje nañoo nga jiite ñoom ñépp yaa yor tedd yaa yor melokaan yu jag ya li nga lamboo ci ngëneel ak baax kenn yeyoowu kooku moo yeyoo màggal yonente boobu salaa salaam moo waxoon man ahyaa sunnati faqad ahabbanii wa man ahabbanii kaana maay fil janna ku dundal sama sunna bëgg na ma man rasulullah xanaa dundal sunna mooy yàkkale ko bokk ak yaatal ko l'islam bu ñu ko bàyyi woon fa mu yem lu koy tisaare fi mu nekk kon dundal sunna ci nañ koy defee benn nga man di wax wala nga man di jëf wala nga man di mm, comporté woo ci sa comportement ngir mën a convaincre ki ngay woo ci l'islam wala nga mën a wax kon yonent bi digle yaatal l'islam man ahya sunnati ku ko dundal nooy dundale sunna mooy fexe ba sunna yaatu ku ne jot ca loolu nag mooy li sëñ Tuubaa nekkoon nazaafatuhu kulli min allahu taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayyinu looloo tax moom mu jël engagement xam nga sëñ Tuubaa bu doon ab film la da nga naan bi da ko bind ba noppi nekk acteur bi te mooy acteur principal bi nga xam ne moom ci boppam moo joué film bi na mu gën a mate gën a rafet ba nopp bind ko jël engagement ci rasulaay yoo xam ne kenn du ko jël lu tax nifaali wa ibqaa'i wa fawsi bila anan bi kaw nii xadimal Mustafa tatabayyan ay engagement la jël yu mat ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg gim ko bëgg jeex gim jeex ci moom fàtte gi muy fàtte lépp egg na ci bu mu see sukkër du saf egg na ci loolu moo ko nett maam Serigne na da ko firil bayitu sayidina maqdumuna muhammadin wal ali wa sahbi rijaalu samadi na ko rijaalu samadi de mooy malaaka yi teewoon badar na ko karalil bayt sayidina maqdumuna muhammad wa ali wa sahbi ibadu samadi na ko ibadu samadi nag mooy malaaka yi teewoon badar na ko maqdumuna mii laa leen bëgg a wax bi ma nekkee ci géej gi yàgg naa ci bëgg Mustafa ba bu ma nee domm kaasub café sukkar si du saf bu ma nee domm kaasub café warga sukkar si du saf ngir bëgg rasulullah waaye wa jaa ani bi kalimatin qad istaxra xidmatan zahiran wa batina a la ma rasulullah ñëw wax ma baat bopp man suuxal la liggéey bi zahir ak batin fu mu mën a nekk lu mu tartar mu ne farraxtu axdaral wara bi xalami fii xurbati inda shtidaadi kurabi fa nattu ye gën a tare gën a metti gën a diis gën a dëgër keroog laa gën a béglu rasulullah sama xalima nga xam ne boo ko doon jam baa nga koy sotti gadaron baa nga koy def coono yi gën a metti nee na bu xalima gi kiij kiij yi bég gi rasulaay di bég moo may fàtteloo coono yi ngi may teg ak lori noon yi daxaa midaa di xadaa xaaji li xidmati man tabshiruhu daralal aaday ansana kooku nag jàngal nu gàmm ba tey ne ihya eh mawlidi nabi yax men ayaa la du fii shifaun li sudur li kulli haadin yentami ihya eh mawlidil bashir sëñ Tuubaa nee na dundal guddi gàmmo yaxmil ayaala wa duyuur day aar kër di aaru njaboot boo bëggee sa njaboot mucc bëgg sa kër am sécurité sëñ Tuubaa nee na del dundal guddi gàmm waaye fii shifaa'un si sudur tawat yi ne ci biir xol na ci dënnu jaam bi rëy ak kiñaan ak bëgg adduna bëgg daraja ak ñàkk a yéene nit lam am ak te feebar yépp yooyu ci gën a bon te bari nañu ko gooraale fi ne bari na koy wax kooku waxeewul xam-xam waxeewul laaye biire waxewul waxut lu ko naqari ci lislaam nu nit mel a ko metti nu nit mel nit lay waxal nit a mel na ko naqari dong mu fekk aaye bu yàlla waxu yéefar mu sëf ko jullit ñi te yàlla noppi na nii ma gàtt man gàtt na nii ma gàtt mu tële ne mënoo maa wàññi ni nga mën a mënoo maa yokk nee la mën a fexe ba ku njool mënoo ko wàññi loolu boo xamee rek noppul yàlla noppi na léegi bu ne tey misaal da nga koy da nga naan man de sëñ diw laa yaakaar sëñ diw laa topp ñu ne kenn mënta yóbbu kenn àjjana bu ko kenn mënoon yonent bi yàlla dane ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin laa yahdi man shaa maam Cheikh innaka laa tahdi man ahbabta luy sababu nuzul bi ana Abu Talib lu taxoon mu wàcc léegi kon yonent mënta gindee léegi innaka la tahdi ila siratin mustaqim loolu mooy wax ci moo tax bi bi mu ne bi bi suñ borom ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabili gaa yi na al amalu salihat mooy al wasila mu ne waaye wattabi sabila man anaba ilay alxuraan moom dañoo waroon ñii débat di ko moytu ndax waxuma la mag ñi mais gone yee ko mokkal fukki at ak nangam mokk kenn ku nekk boo mënul di say doom mokkal nañ ko bindi kaamil dafa sa kër te bu dee diine yi ñu ci war a peg fiq di ko jàngale da koy mokkal di wéy moom boo ne farate julli nga nekk fanaan naa jàngi mat nu nangam naa jàngi nang sëñ Tuubaa na furuuduhaa tuaddu xamsatan asran allazi aw fi suuf fiqi saxat awalaha niyatun wa yooyu yëpp da nga koy mokkal looy pratiqué fa kullu man min al janabati iqtasala fa ko di ko pratiqué di ko jàngale nga fekk ko am ñee juróom-ñaar fukki at wala fanweeri at ak juróom ñeen fukki at yoroo njaboot ci biir kër nga nii la ñuy jàppe sangu farata nii la léegi kon wan nga ko ne yow léegi la nga doon def démb ak bërki démb ak ñi ci feeñ lépp ci yéen sobe ngeen dox yàlla andi nangam nga ne saalika xaraam te ab jullit yonent bi nee na ak gëmam du mat te fekkul lim bëggal boppam bëggalu ko mbokkam laa yuminu ahadukum ataa yuhibba li axihi maa yuhibba li nafsi laa yakmul imaanu ahadukum ataa yuhibbu li axihi maa yuhibbu li nafsi waaye bokk ci ab jullit ni mu war a mel mooy képp kuy woote te biir la ngay woote la ngay woote la ilaha illallah muhammadu rasulullah nekk dañoo digle nga rafet njort ca moom laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy shiar mooy symbole bi nga xam ne ku ko takkoo mëni su laa ñàkk mandargaale ab jullit amaa la ca biir nag la ca biir yàlla ko xam yaalamu sirrakum wa jahrakum wa yaalamu ma taksibun gannaaw tere nañ la wuñ wuññee rek yow ci sa bopp dañ laa tere nga jàpp ne yaa set fala tuzakku anfusakum ala man ihtada kon yow bul wanee ne damaa gën wala damaa nangam damaa nangam da ngay rafet njortu ci sa mbokkum jullit rafet njortu ci sa mbokkum jaam ñu baax ñi fi nekkoon loolu lañ doon dund noonu lañ meloon loolu lañ doon jëf mboolem jikko yi tedd nga yi ngay jàngale fi ne man man damay wax ne nungu naa boo toogee di débat loo andi na moom la lislaam jàngale nit ku nu mel <clears throat> ma andi la ci keppaaru Sëñ Tuubaa ku doon jëfe loolu ñaaraam lu ñu tudde nasri ak tatbiq xee di pratique ak di taw nga ne léegi tabe <clears throat> Seydina Aboubacar lu ma sam joxe ko Ousmane lu mu am joxe ko ñu ne la Cheikh Massamba Mbacké dawul fanaanoo junni léegi xoola ñaari yi muy daje moom sëñ ma ni mu amee wërsëg te du fanaanoo junni day joxe nee na bu fanaanoo junni bu ko yitte dabee ci guddi gi doon yittee junni bu xel mi demee ci junni bi kon day jàppale junni bee ko faj duutu dem ci yàlla day faña bañ a fanaanoo junni ba bu jun bu ko jutee junni dabee xel mi dem ci yàlla bañ a dem ci junni bi xool joj jikko te Cheikh Ibrahima Diop almashari nee na mboolem way tab yi ñi gën a tabe ci àdduna bu ñu leen doon dajale ak borom xam-xam yi ñëpp Cheikh Massamba leen raw faaxal afaadila ahlul juudi wal karami Massamba Mbakke kasirul almi wal xikam fatan fatinun labibun xaa'iqun yaxiisu nadbun karim ala taati wal xidam dinaa fi guddi di tëdd ci néeg yoo xam ne ay fel ay godd ay yoola lay sam ba noppi di man alquran bari xam-xam ragal yàlla tabe loo am joxe ñu ne naafila nga ne sëñ Daaru Asan Njaay daana naafila téeméer rakka sëñ Daam Abdourahman Lo daana naafila kaamilu alquran mu def ko ñaar rakka ndax dégg gi dégg sëñ Touba Cheikh Mamadou Lamine Baara nee na sëñ Touba li muy lewet lewet li muy baax baax ku tar la ci yàlla xool bu wow la yoroon ci ku nungu la topp ndigali yàlla yi sëñ Touba dawur masla ak yow fillahi du shiddatin xaasil fuadi la man lam yakun min jamil xalqi mumtasila kon sëñ bi boo ko xoolee xool ñi mu doon yar ni mu leen doon teg fi mu leen doon jaarale ni mu leen doon yóbbu loolu doomam doo boo fekkoon ku ko bind noon da nga naan ku mu doon ñu ne kii doom la ci sëñ Touba di Cheikh Mahamadou Lamine mu ne giñ naa ne kon melokaanu sëñ tuubaa li muy lewet lewet ñan la daan bëgg yuhibbu ahlu tuqaa ahlul ulumi maa fala tujaalisu sa sayxa ila saadiqul fudala xoola mbakke loolu hmm? sëñ Touba mu ne ñu mu bëggoon sëñ Baara nee na waaye ragal yàlla boroom xam-xam ya ñan la daan fréquenté sang su baax siite mooy way xam-xam yi way dëdd yi way ragal yàlla yi kon ku yar sa njaboot ba say doom di jaay seenu njuleel di jënd ak taalibe say bokk jaay seen njuleel di jënd ak taalibe ku la ciy bind di la jàngale ko misaal ragal yàlla ak sellal ak bëgg rasulaay lay wax ci yow balaa nga koo attaqué da ngay xam la ngay wax ci moom sëñ Tuubaa ku ko gëstu te yàlla ñor la lislaam ñor la bëgg nga koy def ak waggar ak wormaal waaye doo ko wax leneen ñor nag wala mu mel noo mënul mel wala ñooñam mel noo mënta mel bu la neexee wax loolu waaye boo ko seetee yàlla kese rek ngay gis ci moom yàlla kese la woote daxa la jalla fal mujibi lahu ridan wa naajin wa muhtadin ilallah xoola gàmm gii ma lay wax am na gàmm gu ko fekk gabon ngoo xam ne genn ganaar la yor di wër ku ko jox amu ko na gàmm gu ko fekk gabon xam ne seen saatu la yor wute ko bin dem wecc ko li taalif muxaddamatul am daa moo ne wuuteeg bi muy gàmmu njëreem mag ñi bare baree baree bari ba soxna góornóor bi ñëwoon di seetaan si daa riir keroog keroog Cheikh Issa Dieng ndab yi nii togg di ko yàq am na ci yooyu sax amuñu bool yu ñu ko def dañuy def lu mel ni peron rek sotti njëreem fees del kuréel ba la taxaw di yëkkati muqaddamatul am daax kuréel bii taxaw di jàng mawaahibu naafiya kuréel bee taxaw di jàng gis bul xulóob ñii di jàng bari seen ji yu muy bàggante jalaal jeeg jamaal ji di ko dër léegi-léegi mu dindi kaala gi ngir di bégale nit ñi jëmmuñ te ñetti kaala la daan tegle lu mu lëndëm lëndëm bu ne kàng muñ day mel ni fu nu lal taal lampe patafoor bu kaala gi ci suuf rëccee ba sikkin bi génn danaan laas nga defee ne leeri laari wurus la chaîne yi wurus yu lang suñu musaaka da daan muuru yor yetti kaala yu joor raawan yaa ngi ko daan féete wàllug nday joor bu muuraay gën a lam set sikkin ba ne laas dina saf laari wurus moo ko jekk ay faas xeesu ba ne pecc foofu di aw ñuul yaram baa ko tax mel ni jaani ngolool muy bàggante di jël ja gën a char di leen ko sottil di jël ñam ya di leen sottil mag ñi di yëkkati di jolli ci kaw antal kariimu annal xadiimu dëhëran udiimu fii ka sanaay macha allah jërëjëf yaay ko tedd gi antal karim anal xadim may ki lay liggéeyal dëxëral udi mu fii ka sénat yi diirub jamono yow lay kañ bakki mm-hmm. waaw dafa jàkkaarloog moom déedéet Mm-hmm. anta mm-hmm. waaw kon bi muy wax ak yonent bi mm-hmm. maanaam nekkul ci ay gént nekkul ci ay nelaw dafa jàkkaaroo moom face à face bu jàkkaaroo moom damiru gaayib lay jëfandikoo daa huwal karim <laughs> nako antal karim jahanan ko dimu fika sala tubaarkalla tubaarkalla anta mooy ki nga jàkkaar mu ne ko yow yaay yow mii may jàkkaar lool man mii may ki lay liggéeyal diirub jamono yow lay kañ am na feneen fu wax ne indil xadimu ay su uqiima loolu nag lu doy waar la man maa lay liggéeyal fu ma mën a taxaw ay si uqi mooy problème bi dëgg sarax gu ne pexe mu ne lu ne jéem nañ ko waaye loo jéem mu ne indil xadiim maa koy liggéeyal moom rasulullah liggéey googu mu koy liggéeyal nag moo tax mu ne yaf na lazi min umri qad baqiya fi shukri wal xidmati insha rabbiya sama dund gi li ci des lépp sant ak liggéey rasulullahi rek daal na man du waaje wurus du waaje xaalis du waaje or du ma waaje jamaa du ma waaje yére yu rafet sama taaru biir sama taaru bitti mooy doon gi ma doon xaadimu rasul ta di ko roy siinatu zahiri wa batini ma man lil ida siinatu zahiri wa batini maa kaw nii xaadiman lahu muttabaa siinatu zahiri wa batini maa kaw nii xaadiman lahu muttabaa nee na sama gànjar mooy doon gi ma doon xaadimu rasul kon noo ngi leen di jaajëfal di sant sunu sang si sëñ Mahamadan sëñ Modou noo ngi leen di gërëm sëñ Ablaye sant nañ leen bu bax yàlla xam na ne bi nu sëñ Bachiru wooyee sëñu noo bañ a wuy si waaye waxuma la Touba waaye fi ne ña may xaar ca kaw lax waaye waxoon naa ko ne ko danaa ñëw te baayam laa yaakaar kon bu ma nee ko danaa ñëw boo ko yëgalee ne danaa ñëw tey kilifaam sàkk loolu ci moom ngir ma ñëw faaw ma bàyyi lu ma jàpp ñëw wuy ñëw giit waaw mi ngi noonu kon nag loolu sant naa ci yàlla bu baax ñëw fekk fi sang si bi ma ñëwee léegi sañ aas sëñ xaat sëñ Basiiru mii dama ko gëj a gis tamit sama xarit ma bëgg ko lool ndax njàmbaar gi ak taxawaay gi ci yoon wi ma di ko ko wax na ko man kay li ma jaaxal mooy gëj a gis gi ma la gëj gis moom du yow léegi man li ma def laa bëgg a xam ngir ma jéggul mun ne ma déet ma ngir ma xamal la ne dara nekku fi sama xarit nga woo sëñ Mahamadan mais am lu ma ko sant na ko na nga ko def balaa yàgg loolu xam nga jar na ñëw sëñ Uway si mais dañoo yàgg nee naa ko moo ma jëkk may 40 mille di ko sant Mbàkke booba ku ko soxla la keroog bi muy bi bi muy ñëw kër ga sëñ Uway si Mbàkke Mercedes 250 baguette large bu rafet la fa indi bu giri muy taw amul fooy jaare amul fee mooy buntu kër bi foo jaar rek fa la ba muy ñëw fekk ma fa keroog quarante mille yi boo ko dafa mel ni deux million ci man fi ma fekk ci situation ndax boo amee problème mu cinq mille ñu la quarante mille déjà moom sëñ awi sumee moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Massamba Mé moo ma ko ma sa may quarante mille ci jamono boo xam ne moo ma daqal ay millions ndax boobu problème mu junni am naa ko te soppikuwul maa laa yan sarif la ca melokaan weew mu nekk moo tax li tax ma di ko seere it mooy àdduna ak loo mën a am ak noo mën a mel bul fàtte te waa kër sëñ Touba moom jëruñoo jaay jom aku fit jëru ko xam nga dañuy nettali ne sëñ bi da daan wax ne moytu leen ma ci sama taalibe yi rus leen mi sama bokk yi waaye fi na am na beneen nettali bu ko gën a metti boo xam ne dafa xëy wax ne sama bokk yii de ku leen defal njekk xaw ma ñu man a fay xaw ma mënuñoo fay xaw ma ñu nar a fay xaw ma mënuñoo fay waaye boo leen di duñ ko yëg waaye sama bokk yi ku leen def safaan xaw ma ñu mën a fayu xaw ma mënuñoo xaw ma ñu mën a baale xaw ma bu ma leen di fayul duñ ko yëg te loolu li nga koy xamee mooy amul wenn tund wooy dem dégg ñu ne maam diw moo yaboon maam diw yi sëñ Tuuba ba noppi nga dégg ñu ne teraanga jee moo ko moom wëral fu la neex foo dégg ñu ne diw maam diw mii tegutoon sëñ bi fenn tegutoon njabootam gi fenn doo dégg luñ ko yéeme waaye ku la yéem seetal da dégg ñu ne maamam dammaloon na ko bantak ba góorgóorloo wu a nangam ak sëñ diw moom dëkkaloon ak diw la siyaare ji woon ak mas na ko abalu fas ak mas naa bàyyel tool ak loo ko laalal bu lay fay doo ko yëg te sëñ Tuubaa li mbiram neexe boo ko joxewu juróom bu ñu lay fay ay milliards lay doon boo ko joxee mbaam ay watal lañ lay jox boo ko jébbalee sa bopp mu boolee ñuy liggéey di la jox loolu la sëñ Tuubaa kon maa ngi fàttaliku loolu tam neex ma lool man dama leen di wax ne àdduna li ma ci gën a neex mooy fàttali fi nga jaar ndax tey neex na xam nga man waxuma la 40 mille waaye ñii ma xam-xam nañ ne mu may mu mën na maa may nit bu doon million sax mën naa ko lu gàtt gàtt man naa ko nag mën na ko bañ a weesu daay mën naa ko nag bëri wut nag waaye 40 000 ku muy arrangé loolu taxul nii da nga ko war a fàttaliku mbakke dama ànd ak sama benn waay ci màggal gi am sëtu sëñ Juba moo woo bisu màggal dama gànn foofu nu def ndaka màggal gi ma ne ko dara sottiwut te booba maa ngi yeew ay nag ak yëpp xéewal yi bari mu ne ma waaw li nga wax nag ma ne ko sëñ bi kii surtout sëñ Tuubaa la bésub màggal ni mu xate ñeewante gi mu am ci yow yërëm la bay laaj ndax lépp sot na bu ko jaay jomi lépp a ngi fi bu ko jaay jom dellul ci suufam rek ndax yëg gi mu la yëg mënoon na la bañ a yëg mënoon naa tal siyaar yaag mbooloo ma waaye fàttali gi mu la fàttaliku di la woo ma ne ko waa kër sëñ Tuubaa doo leen jaay jom doo leen jaay fit loo gën a nooy gën a jariñ kon sëñ Dan noo ngi sant bu baax sëñ Modou gërëm nañ leen ndax it gàmmo waxuma la jëm mi réew mi waaye kenn ku ne sa kilifaa ngi koy def kon la ñëpp di seere ci yéen ci jëf ju baax ak jikko ju rafet ak akuk taalibe akuk baax akuk wayef ak jàpp sa njàmbur ak fonk sa kilifa ñëpp nawee leen ko ndax kat réew mii lu ne fi mën a nëbbe ba mu des ab safaan nit ñi moom mën nañu loo xam lu baax sax tekki seen tànk waaye seeni tur fa mu yegg ak nañ leen di waxtaanee am na xamoo leen te gis naa fi jëmm yoo xam ne nii gisuma lu leen nit mën a jënde ba tax ñu jóg lu du jikko ju rafet rek kon yéen it sang si na ngeen leen ñaanal bu baax ba nu way jur ya meloon ñoom ñi nu mel nu ko raw njaboot gi ñëw seen ginnaaw mel nu ko raw mu sax dakk lépp daje ngërëmul Sëriñ Tuuba maa ngi balu ak na ngeen ma jéggal Cheikh Abdoul Bachir noo ngi lu bu baax ci jataay bi bun ma ñaanalee rek sëñ Xaalib sëñ Bachir loolu la ma waxoon na ma boo yëkkatee kàddu yow ñu mën laa ñaanal